à deux semaines toog nañ ak aussi le bureau des commerçants yu nekk fii pour xool mooy fii nan lañ ko war a organiser parce que jàppoon nañ ne y a de l'anarchie anarchie boo xamee ne il faut que état bi jàppale nañu si ñu wut benn site de recasement pour ñi nga xam ne fii la ñuy liggéeyee dañ koy leeral ñii yàgg nañ fii e que ay pères de famille lañ ay pères de famille lañ et c'est très important du day am problème rek nga jël ay décision yoo xam ne day lor loraale ñeneen mais état bi ak ñun ak ñoom dinañ xool lu ñuy def ba nga xam ne dinañ am un site de recasement ñun loolu la ñuy ñu xool en attendant suñu nekka état bi lan lay lan mooy lan mooy mujj am.